jërë ngeen jëf borom force restera à la loi di mettre Ousmane Ngom ministre intérieur Sénégal ba woon yéenekaay yu bëri ñu xëy ndool ci mbiram la ñu xëy dikk ñu doore kook Sud Quotidien mi xëy dikk ak ñun ci Ousmane Ngom mi ñu jëli démb ca hôtel Hobé ba nekk ca Kolda journal bi dañu falo ko takk der fekk muy ñan muy waa bi brigade intervention polyvalente ñoom ñoo ko jëli daal di ko yóbbul procureur ba beneenub yéenekaay bu dikk ci woowule wàll di Le Quotidien nañu Ousmane Ngom mi ngi ci garde à vue jamono ji takk der yi ñoo ko teg ay gët observateur xëy dikk ñun ci mbir yeeg neneen nu mu gën a leere journal bi nii la dikkee ak ñun maître Ousmane Ngom ba ñu ko jëlee ci fi nga xam ne moo di Kolda dafa xam ba mu yegg si Ndakaaru dafa xam yéen bi nañu noonee lañu ko jël benn waxtu pendant une ñu yóbbu ko infirmerie ca caserne Samba Diéry Diallo yëf yaak na mu demeek nañu ko jàppeek lépp yéen kaay bi di di ciy dikkat Ousmane Ngom ak lañu koy toppee journal bi di observateur ba tey desu ca gannaaw nee nañu outrage à magistrat di magistrat ci boppam ñu tooñ ko bokk na ci li ñuy toppee maître Ousmane Ngom yéen kay bi ah tey jii ku moytuwul Ousmane Ngom kaso ba lay fanaane li xew yéen kay moom it dikk ci ak weneen walla moom nañu jàppe Ousmane Ngom dafa monté ay image am yëf yaa ngi ni ci xët mu njëkku yéen kaay bi muy mel ne ñoom Jack bawar ñu roog cellule antiterroriste ñu ngi nii nit ñu am seen sol seen i kagul ñoo jàppoon Ousmane Ngom li xew nañu toll nañu ci fanweeri agent yoo xamante ne ji dañ leen a mayoon juróomi minute ngir ñu dugg ca chambre 25 ca hôtel Hobeg Ousmane Ngom nekk jël ko yóbbu noonee la ñu ko defee Ousmane Ngom ak la ñu koy toppee Pape Samba indil ma xët mu njëkk populaire mi ngi yéen bi nañu lii mooy li ñuy toppee kii di Ousmane Ngom journal bi nañu jàpp leen ba ca njëkk moo di ay armes yu ñu commandé woon dañoo gis ne ma nga ca muy benn ñaar mooy mbiri passeport diplomatique euh, passeport numérisé yi dañoo gis ne ti am na leneen lu ca nekk journal bi nañu lii mooy li ñu toppee Ousmane Ngom te nag yamu ca ndax am na it benn usine buy defar wàllu jus nekk ca Sindian loolee libération moo ci xëy dikk nee na usine boobee am na leneen lu ca nekk loo xam ne dañoo yaakaar ne loxoom Ousmane Ngom ma nga ca benn dossier boo xam ne it jabari Ousmane Ngom moo koy gérer lii bokk na ci li yoon di gëstu direct info nañu waaw mais nañu waxante dëgg lan moo fi jar dem fekk Ousmane Ngom fa mu taxaw ne ko kiir tip mel ne kuy jàpp ab délinquant loolee ñu def fan la ñu ko teg teg leen mbiri Ousmane Ngom ci suuf Pape Samba nga jox ma xët mu njëkk la Soleil duwaan jaajëfe ñoom kenn du ñoom at mii ñu nekk di 2012 ak at ma la ñu génn di 2011 lu mu gàtt gàtt 172 milliards di téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari milliards douane am na ko ci recette démb lañ ko xamal jëwriñ gi ñu dénk wàllu koom te nag yamu ca ndax njiital douane nee na ñoom li ñu am ci effectif muy ñi ñuy liggéeyandal seen i agent bu yokkee limub li ñuy liggéey dana yokk ma yokk samay jéego dem ci làmb ci sunu làmb xëy dikk ak ñun ci lii ñaari bat boy yi ci arène bi Gris Bordeaux Tigre de Fass loo journal bi lañu seen janoo tey la tey jii la ñuy janoo ci ngoon gi face to face bu njëkk bi dana tàng dana mitti dina ko jar sunu làmb dikk foofee Leewtoo yéene kaay moom it xëy ko feelu ci wooyu le wàll ba tey ci ñaari mbër yi xarañloo loo ak Gris Bordeaux Leewtoo nee na dañuy daja tey ji surnaal bi daje ak it kii di Balla Gaye moom ca Casamance ga mu fekk baax fitna jafa am moom la bëgg mu dakk journal bi nañu Balla Gaye dugal na loxoom bu baax a baax ci mbiru Casamance tey bëgg na jàmm daal di fay dellusi jàmm fa mu nar a jeex journal bi di sunu làmb ca lay demaat ak yéen mu di diggante Tapha géant bawal mbooloo ak kan bombardier mi nga xam ne mooy B52 ah daja ba soreetul de sunu làmb nañu am na leneen lu ca xew li ca xew lan la Pape Samba jox ma xët mu njëkk mi mu ngi nii ci xët mu njëkku yéenekaay bi di sunu làmb benn sëriñ boo xamante ne ji moo fay dànkaafu tafaatin nee na tafaa déglul bu baax sëriñ bi nee na waxuma nag moo wax nga dem wuti bëy bu ñuul buy dund gas ko suul <laughs> te yaakaar naa daan Bombardier ko gën a yomb bëy ak ni mu baree wax nga jàpp ji bu ñuul buy dund bëgg koo suul fu ngeen dégg bëy yu mbem rek xamal ne mbër a koy suul <laughs> jërë ngeen jëf <laughs>